Come again. ji sëriñ bi de moo ko taala ragal na jabaram kooku mooy am liggéey waral dabi di ko chantage dama fàtte mbegere délégué de quartier bi muy doonoon simaam aya ñoom bugguñu jàmm ak salaam moo tax ñu ngi dóor ak saaga bàyyi ngooñ kaso la génne di dugg ci lu ne du moroomu gone jaay ngooñ du ko fowe nono du ko kofe te fépp la mëne ah Burundi jóge na Colombie mën a xànju lu ko neex lay sol nañu bëkk néegu sëñ bi foo ko fekk ci wetam rek lay toog

waaw yow yow yow yow daa tukki. waaw man ab seen naka laa. mu ngi dëgg mu ngi dëgg xaw ma leneen lu ma liggéey lii rek laa mën a liggéey. bis bisimilah. <laughs> kiraaman kata bi daay kiraaman. ca ba ca ah ay eh, noppi boo ñëw ba man amul kiraaman fi fii. foo nekkee góos góos. Ah, kii ani. Eh, ah ndeyjoor. Ah. ndeyjoor. <laughs> kiraaman kata bi daay kiraaman cabas cabas. yow da nga naqaree de eh moom kiraaman kata man ah kiraaman kata kata dara dama door a fayu réewoo. bravo man dama doon gis rek danga may danga may jéggal kiraaman katabinaay kiraaman cabas cabas cabas cabas egsi noppil yéen joxe may nangu bur yàllaay fay yaa ne fii looy liggéey yow sunu papa moom mooy jaay ngooñ fii man maa fi nekk tey moom daa ah, fooy ab ab ab ngooñ ngeen fiy jaay waaw de bu ko de dama koy ñaanal rek da de damay sàkku ndimbal di yelwaan di yóbbul njaboot gi bu la yàlla tegee nattu moom amoo lu dul ñaan say say mbokk ñi nga xam ne yàlla tegu leen ko ñu di la dimbali rek te yàlla tax moo tax may yalwaan lu ma yóbbul njaboot gi moo tax ma naan bul tapp moo tax ma naan kiraaman katabi naay kiraaman cabas cabas di sàkku ndimbal rek yéenay joxe yàllaay na may nangu yàllaay fay xaas bi ma yoroon réer na ma di ah doo xool fi nga toogoon ba xam wala sa yére bi nga sumbi wala xar waaw am naa xar kër ga góor wala jigéen am naa góor am naa jigéen maa ma waaw am na doom temps yële am na doom temps yële moom lekk ngooñ ah xar kër lekk ngooñ <laughs> bu ma tase yaakaar moom moo ah waaw waaw wax nga de moom nga paan paan paan mu timbala tuuti paan non instant bi la yoruma paan yoruma dara aw bant kese laa yor no kiraamam ka taf rema ne xoo dimbali dara ah teg maa dimbali te yàlla tax bu ma neenal kiraaman katabinaay kiraaman caba ngooñ ah ngooñ ngooñ ah man bañu dara lu ma waay sarax ma yóbbu ngooñ bu weex wala bu ñuul bu ma am baax na bu ma am baax na waaw jëlal benn nga dem man mënu ma ah, ah. ko demal jël nga dem <laughs> ah? nga dëgg waay eh, di il faut ngeen may ngeen may dimbali rek fu mu anamu. bi bi bi yàlla joxu la ko ma maaleykum ba ma moo la ko jox. ah maaleykum ba ma ko jox. noo ma ñaanal. naa ñaanal loo bëgg. bu ko gisee sama sëriñ Cheikh Diop Mbaye. Cheikh Diop Mbaye moo sa am nga sëriñ bu sëriñ sëriñ bu baax waay te te te te mën a jàng. bu jeexee. waaw ñuul. ay waay jërëjëf waay jërëjëf maaleykum ba. waaw yàlla fa yiw yàlla jub. ah fa yiw yàlla waaw. amiin waaw jërëjëf teg ma ci yoon de. Ah. teg ma ci yoon. Ah. teg ma ci yoon nii laa ma ci yoon. yoon. Uh-huh. yoon la war a yoonu kii bi rek man dama yelwaan xam naa dama yóbbu lii kër ga te ñëwaat ah. waaw. di jaaral nii. nii waaw nii waaw. bismillah. kiraaman katabinaay kiraaman. ay mu di xeeb defal nii. fii xaw na montagne. ci kanam. waaw. kiraaman katabinaay. aywa moom fi ma jàll fi mu doon. kiraaman katabinaa kiraaman cabas cabas. kiraaman kabar kabar ay kiraaman katab barab. kii kii kii ku tab xorom la. ku fi baa ñëwal. papa baa ngooñ ngooñ mi dafa yàqu rek. leen de sa papa de fu ne nii mbaa pàkkam bii jàppal ne ay millions la bu deewee de lépp yaa koy doon man chef de quartier maa la wax nag ndax xam nga loolu maaleykum. yow lii ma may sama jàmm. yow doo am sama ngërëm. waaye yàlla maa ngi jaayam ngooñ ngir lu ma yóbbu këram. Eh, borom ngooñ. waaye yàlla ah. borom ngooñ. waaw ngooñ mi ñaata. ngooñ mi waaw. ngooñ mi de saako juróomi téeméer laa koy jaayee. dañ ma koo sarax. dafa amul lu ma yóbbu kër ga moo tax ma bëgg koo jaay rek yóbbu de ko dépasse. yow foo jëlee ngooñ mi. ngooñ mi. Hmm. dañ ma koo sarax. waa ji baax ma ko sarax. fan lañ la ko saraxee. benn benn kii daal laa dem fay doon yelwaan ba romb pàkk daal. duul nga duul nga de ngooñ mi sama ngooñ xam nga ne ngooñ mii. mu ni ngooñum ñii bi la. mu ni ngooñ mi suñu bas mbàkkee ko bay dégg ngooñ mi xam na ko. saraxuñ ma ko ñii mane ne bañ la ko saraka saa pàkk ngooñ mi moomoo ko dañ koo sàcc jox la ko. déet déet déet déet déet déet déet déet eh déet lii sama alal la saab marka nekk ci saako bi ngooñ mi ñam naa ko sama ngooñ bay ma boo bëggee jàmm sinon naa la noq fii de déet sëñ bi du ma la bàyyi laa wax du ma la bàyyi bàyyi ma du ma la dañ ma koo sarax waaw yow ko la si yow laay la nga amul ñu dem waaw yow moom bëgguma bëgguma sa ngërëm moom ngërëmu Cheikh Diome Mbaye moom moom laa bëgg. boobu nga bon nag. ndax man sa xaritu Baye laa ma ne boobu nga bon. boobu nga bon du commencé ci commencé ci nga ñëwal. boobu nga bon. gis nga gis nga yow. moom quartier bi taxul nga moom sama pàcc bi laa wax. dégg bu baax li ma la wa yaa moom quartier waaye sama pàcc bi amoo fi benn dogal bay jël sama ngooñ di ko saraxe. Baye ngooñ yow ku ëppal nga. yaa ma gën a ëppal téeméer gis nga loo ma bañ bañ bañ bañ bañ nangul ma lu ma yàlla jox. ma ne man li la jox sama yoon newu ci sama ngooñ maa ko moom waroo koo saraxe tooñ nga ma nag te tooñ baaxut da nga maa tëg bët ah. Baye Ngooñ yow lu ma lay doyee tëg bët. ngooñ mi ngooñ mi nga ma tëg bët yow lu ma ciy jox xoolal ngooñ mi. yow man maa la ëppale salaire di man 500000 lañ may fay mairie di sama jaba 250. faalewu ma loolu man sama ngooñ mi laa gis. dégg nga lu ma lay doyee kii. ma yow lan moo ci am preuve sax ni ngooñ bi man maa ko. saraxee bu bëgg a nar yow dañ fekk fekkal baat boobu may dégg moom ma ko jox de baat boobu may dégg baat may dégg mu nekk moo ko jox Malicoumba kon yow yaa jël sama ngooñ di ko sarax kii baat boobu may dégg ko moo ñëw mu wax kiram karama na kiram karam karam yow nag bis bu set rek nga may def toroxal ma daal ci sama digg nawle nga nekk mbégé de baal maak baal maak baal de Malicoumba yow war ngaa jël sama ngooñ di ko di ko saraxe. tuyaaba rek. bu ma baa ngooñ ma man maa xool xam nga yow amoo tuyaaba. moo doon wutal tuyaaba bëgguma tuyaaba sa yoon newut sama tuyaaba dégg nga sa yoon newut sama tuyaaba Malicoumba ñaata at àll bi yoruma dara nekk ci àll bi taxawaalu yàlla indi lii nga ne danga koy saraxe. léegi xam nga lan laa bëgg. Hmm. bis ni tey nga bàyyi pàkk bi bu jaarati. ma ma bàyyi fa. bàyyil pàkk bi bu fi sa tànk jaarati dégg nga baax li ma la wax. bis ni nga tey aw ma lu ma lay fay man bëgguma tuyaaba bëggaale ma tuyaaba sama saako ngooñ jël naa ko génnal sama baag. xale bi jooy ndax leen Malick génnal baag bi. yow góor yàlla voilà góor yàlla ma doon doon góor yàlla naa la jóg. waaw su ma doon di bàyyi. Mbegere. Mbegere baal ma. góor yàlla góor yàlla. bàyyi histoire bi yow nga bàyyi ngoon su ma doon di bàyyi moom mu ngi nii moom mu ngi nii. jox leen ma sama saako ngooñ laa wax ma dem. jox leen ma sama saako ngooñ ma dem. damay damay tëj waaye yow. yow waaye yow. waaye. gë gë gë gë gën a gën gën a ñafal ndek. tëj tëj. Mamour bàyyi na. gën a gën a Mamour bàyyi na. gën a bàq. Mamour bàyyi na. maa ngi ko ma gën a bàq. bu ma la bàyyi na. gën a bàq bi. Mamour bàyyi na. di nga saraxee di nga saraxee sama ngoy. di nga saraxee sama ngoy. ngeen